bisimil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi bur yàlla dolli noo ay maqaam yàllaaw bisimil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi bur yàlla dolli noo ay maqaam yàllaaw salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk internet yi nga xamante ni yéen a baaxoo suivre seen télé bi nga xamante ni mooy Salam Vision di télé bi nga xamante ne moom lañ dàkkantalee jàmm ju ànd ak gis-gis ba tax na saa su ne ñu jóg rek di seeti mbooleem ñi nga xamante ni rek ñu yëngu ci wàllu nga xamante ni mooy wàllu xam-xamu lasraar waaye itam di yëngu tam ci li nga xamante ni mooy wàllu faju aada ak cosaan macha allah rabbi tey nag ñu ñëwaat fii seet si waat suñu xarit suñu jëwriñ suñu njaatige waaye itam suñu jarbaat ñu gën ko xam ci Serigne Souleymane juuf moom nag nee naa àdduna wërngal këpp kenn dootu ko présenté ndax koo xamante ni wax dëgg yàlla bi nu ko xamee ba tey xam ko ci li nga xamante ni mi ngi koy yëngu waaye tam xam ko itam ci li nga xamante ni mi ngi ciy taxawu doomu aadama yi suba ngoon gu dégg bëccëg rawatina wàll wi nga xam ne moom lay nekk Serigne Souleymane Diouf ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar waaye ñu ngi lay ndokkeel di la dalalaat ci biir jotaay bi nga xamante ni mooy jotaayu faj sa jàngoro ci biir salaam Vision salaamaaleykum wa rahmatullah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 waaleykum salaam wa rahmatullah Cheikh Talla ñu ngi lay ziar di la màggal bu baax di la fay hmm. di wax mboolem koo xam mu ngi dégg di wax di leen jox seen góomu xam di la aleykum wa rahmatullahi taala di am kontaante bu baax si sees gi nuy sees si hmm. wax dëgg la xaal nag génn naa leen gis loolu wax dëgg yàlla waaye nag du dara nag jàppoon doomu hmm. ak xam-xam loolu doxam doomu ñu ko jënd génn waaye ñu ngi fi incha allah ñun daal maa koo xam ne maay xatam wa rahmatulahi taala wa barakatuh. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa ci nuyoo solo boobu waaye itam macha allah rabbi ci ndokkeel geeg siyaar beeg lépp itam macha allah rabbi wax nga ko léegi ci sa biir wax rek euh, foofu laa bëgg ñu tàmbalee bala maa dugg ci yi nga moom laa indi woon lu waral tëju bi. wala jafe bi nga xam ne jafe nga ko ñu gis si suñu Souleymane jamono yu toogatul euh, daanaka li nga koy fekk ci këram sax bëriwul maanaam fee déggante wu leen ba nga am rendez-vous boo ñëwul doo ko fekk li ci ëpp buñ ko ñu ngi koy woo mi ngi ci àll bi gëstu xam-xam la wala uti ji ay bagage la wala lan moo waral fi mu toll ne daanaka àll bi nga xam ne ñeme nga ko àll jamono bi ñu toll. waaw fi mu daal alhamdulilah. si ni ma laaj sant yàlla bu baax ndax lu waral ñàkk a toog bi du dara ndax so nekk soxlay jaamu yàlla yi mhm. guddi yu toll nii soxla nañu loolu. Mhm. sonn nañu loolu te liy jàmmee ci bëri na. comme que yi nag xam-xam nag des ka mën a wuti. ndax xam-xam du wees. Mhm. kon nag dañuy gëstu ñu lu bëri bëri bëri si wàllu xam-xam ak wàllu. liggéey bi nga xam ne moom suñu borom dogal nañu ñu koy def. Mm-hmm. aadama yi du ñu bëri ba tey jii ku ñu jox seen xaalis tamit ñu ngi koy lekk. Mm-hmm. war nañoo xam xaalis fu koy dugal ngir soxla yi mën a faju. Mm-hmm. looloo tax nag fan yii yëpp tooguma mooy dugg di génne ci àll bi moo tax yu bëri bëri voyage yu bëri ma koy def. dugg di génne pour soxla yi jàmbaale yi faju loolu la tax doom wax dëgg na yàlla ma xawoon a jafe tuuti maa dëgg yàlla na ma est tuuti rek ma fan yi incha allah jërëjëf ci leeral bu solo boobu wax dëgg yàlla ndax nee naa jamono fi mu toll nit ñi jaaxle gi ñu jaaxle sonn gi ñu sonn ku ñu jox seenub dërëm wax dëgg yàlla boo leen boo ci boo waslu woon àq daanaka daanaka naar bi euh, dërëmam wax dëgg yàlla waroo ko waroo ko koo yàqal te fi mu ne dafa bëri ci réew mi muy coow loo xam ne fi ne gars yi dañuy jooy. Mm-hmm. sëriñ si kuñ ci ku ku ku ku ku ko encaissé xaalisu xaalisu client. Mm-hmm. pour client ba jotati la fi mu ne daanaka dootul dootul yomb te loolu moom bokk na ci li xam ne wax dëgg yàlla gàllankoor la. moo taxoon na fi ne comme ni nga ko waxee tam dafa daal di doon loo xam ne lu am solo la léegi yow tam yow mi nga xam ne yaa ngi yëngu ci wàll woowu di gis bés bu ne. Mm-hmm. sëriñ si ak client yi li ñuy jooy. ban jàngat nga ci am fi mu toll ci sa waaw man de sëñ Talla li may wax sën su béykat ba maa ngi waxtaanee sama benn mbokku taalibe ñoo xam ne ñoo bokk ëtt bi ñu jàngee. Mhm. maanaam que Sénégal Ndiaye la moo tax kenn wóolutul kenn. Mhm. mooy léegi ñun ñun ñi nga ñun yoo xam wàllu mhm. ñoo gën a jubali léegi sax ñi nga xam ne wóoluñu wàllu sëriñ. na waar. mënuma xam ma ne ko nag àdduna. ndax ñi nekk bitim réew lu noonu sonn. ndax mënul nekk Sénégal mais envoyé ma nangam sa xaalis dafa la sarax sangam. Mhm. léegi kooku envoyé envoyé la boobu bu mu sarax sangam defoo ko. Mhm. jàpp ëllëg yoo ma yàlla dina rëkk sa digg. allah adduna moom. muy mhm. sëriñ la muy keneen la si yemaay waxuma naa lan la ni yow sëriñ la. sëriñ la sëriñ la. war naa alif laam miim zaalika kitaab fii hudan lil muttaqiin. hudan. jub nañ mu takkee naka naka yàlla. yàlla loolu lay njëkk waaye yàlla nga baqara ba pare. Mm-hmm. nag nii nag nag la la firi foofu noonu. Mm-hmm. mais nag fii nii dañ la alif laam miim zaalika kitaab da nga téere yàlla bi. Mm-hmm. zaalika kitaab waaye fii huddan huddan la muy njub li muy takkee naka naka yàlla. lan moo tax ñun seen liggéey boo la ñu ragal yàlla. kon nag ñun ñii maanaam man li may àndul mooy sëriñ si na taxaw ñu ne ñoom ay sëriñ lañ. Mm-hmm. ngal la mu ne encaissé xaalis jàmm ku ne mu woo téléphone lañ ko jël. Mm-hmm. mooy man nag amuma bëkk mm-hmm. ko. sama téléphone maa xëy ku mu woo téléphone yu taw ma sama naa ko ku may woo kan la. loolu yor na mu jël woo la. mën na maa fekk ma jàppale waaye nag ku ma woo jàpp ku ma woo téléphone jutoo ma. Mhm. wàccal ma message sama whatsapp. Mhm. su ma paree man dinaa la tontu. alhamdulilah waaw na ko de yàlla. waaye nag maanaam sëriñ yi koy def. Mhm. ngalla nañ ko bàyyi te nañ xalaat ni ëllëg bis dafa taxaw. wallaahi surtout si guddi yi nii. dee dina bëri lool. wallaahi de sax. ren gii. dee dina bëri lool dina am kilifa yu bëri yu wàcc. est-ce que. te seeyaat yi bii moom maa ngi koy ànd te dinañ ko wax. macha allah nañu may turam. Mhm. waaw euh, mel ni fi mu nii sëñ Souleymane am na loo xam ne wax nga ko léegi fi mu toll nii léegi dégg bu bëri googu moom fi ne lan moo koy sabab fi mu nii <laughs> ndax boo waxee loolu lenn li boo ko waxee noonu te xamuñu lu fu mu wund lu mu wund mën naa dund suñu bopp yi dégg ci ban côté lay amee. maanaam mbir sëriñ si. Mhm. sëriñ si. waaw dina bëri ñu bëri seetaan nañ leen dugg. ba def loolu rek mu mu doon ko maanaam ñoom ñi war a fànq seytaane fi. seytaane ñoom ñi war a fànq seytaane yi nga xam na mm-hmm. seytaane gën a sama. wallaahu akbar. ma wax nañ tey nag tey jii. Mm-hmm. sacrifice dina bëri lool. est que. te ren gii. Mm-hmm. dinañ gis loolu musul gis. waaw ah, sëñ bi loolu benn waat yi. lii moom maa nañ ko wax. ndax yàlla. mooy dénk. Mm-hmm. dénk bi ñu dénk rek moo mm-hmm. ñu xamal dañuy gis. ndax la mm-hmm. mën a teg si lu bëri. dañu moytu loo tëdd guddi ñu ko wala da nga gis ko. man damaa nekkuma di di damaa gis nekkuma di seet damaa gis. def naa ma yàq sa taw ñu ma. te fajar lëmm la ma wan. salaatu xayrun mina nawmi la ma wan. la ma wan. loolu ma toog fi daal damay seet ay yéen ne la wan la la wan une semaine na ma teg sama bët te la misaal ba misaal ba gis naa ko. Mm-hmm. misaal dëj ba sa boppam naa foofu ba dem dëj ba ñëwaat. misaal bi dafa àndoon nag ku faatu. ku faatu faatu boobu am na ba pare. allahu akbar <laughs> sëñ bi sëñ bi nag fi mu man bëgg a tiital man mi man bi yaa ngi may bëgg am ne boo ko waxee moom fi mu toll nii day daal que tey jii demul ba réputation bu sëriñ kenn bëggatul sëriñ si nga xam ne dañoo xam dara mën dara sax dem nañ ba bëggatuñoo doon gis nga bëgg doon sëriñ sax gis nga sëriñ. Mm-hmm. baatu sëriñ. Mm-hmm. dafa dig dig boo xam ne képp ku ne wax doon sëriñ war naa dëgg banque sëriñ laa wax de. diis na diis goo xam ne képp kuñ ko wax. Mhm. war naa tiit sa bopp. lan moo tax ma doon sëriñ. Mhm. la ma doon ñaama sëriñ. Mhm. léegi kon loolu jar na bàyyi xel ñaan ka dëgg. day yor yàlla. waaw naa ko. ñaan ka pire. day yor yàlla. di zikkar mm-hmm. zikrullahi mm-hmm. zikrullahi li am solo la mm-hmm. istigfaar lu am solo la kon ñaankatu yàlla dëgg wax ma la te istigfaar ndax yàlla moom fa qultu istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara yaxshuru samaa alaykum bidraara wa yumdidkum bi amwaal wa baniina wa yaj'al lakum jannaat wa yaj'al lakum anhaara maa lakum laa tarjuuna lillaahi waqaara xewal soo ko bëggee ah. Mhm. dégg ka yàlla. sa bëggee ngëneel dégg ka Seydina Muhammad. alayhi salaatu moo tax ñun sëriñ si mënuñoo am ijaabe ñaan yàlla yàlla ñu ne allahuma yàlla nangu ni bàkkaar bu rëy ak wax lu munut. ak tooñ bu bëri. Mhm. loolu moo tax duñu am dara. Mhm. loolu liggéey naxtaane yoon. te loolu nag yàlla nañu si yàlla musal. mboolem jullit. tarkal jërëjëf Serigne Souleymane Diouf ci leeral bu am solo boobu noonu waaye soññe bu am solo ko nga xam ne tey jii mbooleem sa naw la Serigne war nañ koo bàyyi xel dégg booy te waslu àq te xam ne kam fi ne wax dëgg euh, euh, war ta tax nga fi ne daanaka defe naa ne ci doon Serigne moo war a gën a mën a ragal yàlla tey jii bu fekkee dafa bëgg dimbali doomu adama yi waaye doon Serigne gën a ñeme yàlla fi mu toll daanaka ñi ngay dimbali moom defe naa ne kooku doonatul Serigne mais Serigne ñu ñëw ci wàllu seet mm-hmm. jour bu ma ñëwee naa ci waxtaan sëñ Souleymane seet ñu bëri ñu ngi koy def waaye sab seet dafa am lu mu ak seetu gaa yi dama gis sab seet da dem bët ci tuddu turu doomu aadama sab seet di nga nit mun la li nga wax gisuma ko génn ëlbati koo waat la téléphone ne ah, man kat sëñ bi la nga doon wax léegi damaa ñëw fekk ci sama kër mhm. loolu nu mu demee waaw sëñ Tall loolu ba léegi may waxaat rek santaat yàlla. Mm-hmm. ndax loolu suñu borom la. war na fadla bi yadillaahi mm-hmm. yuti ma yashaa mm-hmm. wallahu zul fadli azim loolu yàllaa koy joxe. du sama am xam-xam. du sama barke baay. du sama wërsëgu yaay. tarbiyu la rek a jaxasoo ay course. yàlla soo ko ñemee. ah mooy lan mooy maanaam bu da ngay yàlla. ñëwee jaamu yàlla. Mm-hmm. dénk sa bopp yàlla dénk sa bopp fi Sayyidinaa Muhammad. yonent bi mm-hmm. lépp yonent bi la. Mm-hmm. man la ma am. ginnaaw sama waajur naa xam ñoom si ko jur farata sana sa Muhammad. yàlla loolu noonu laa fi am. man seet doon naa seet toog naa gëstu ba toog man man sama wàllu ko jox ma lu wér. ma toogaale ko. si wàllu seen. moo dama damay toog du wax. Mmh. te lu ma lay wax dama si dut baaraam. Mmh. te su si duutee baaraam damay gis. Mmh. nekk lu muy damay gis ci xar. xam nga seet na ngay seet làmmaat. man seetuma. damay gis jafe naa ma yàq sa taal. man lan moo wax dama gis. te lu ma wax doomu aadama tamit incha allah fi yàlla àndee. su ma nee une semaine wala cinq jours wala deux jours loolu mbaaxu yàlla la mais du sama amul xam-xam. Hmm. maa gërëm si ndongo daara. mais nag sant yàlla ndax yàlla lu ñu nekk yàlla moo ñu teg yàlla mi nga teg ñu sant yàlla ndax lu ñu am. lu ñu wax. Hmm. Hmm. yàlla naa ngi teg loxo loolu mi am. te loolu lu la ko may mooy ijaaba. wóor ma ni ne ala ah, li may ñaanal nii nag wallaahu axlam. mais nag sant naa yàlla ba ah ku si seetlu wala si faj itam ah, kenn du. Euh, waxuma ne Souleymane dund naa la baaraam nii na nii nii nii. Mm-hmm. loolu nag dama koy sant yàlla. Mm-hmm. mais wàllu seen si taal. Mm-hmm. am naa si secret ñu juróom ñeenti secret yu bokk te yu mën leen ah, ci may seetee parce que foofu soo gisee li tax ma dama ñëw seet la. bi may waaj pour bëgg ñu def émission bi ma ñëw seet la pour ñu jàpp bés. ma fekk fii mu xat lool waaye ma fekk am soxna soo xamante ni dafa taxaw. dan am lu mu doon sikki sàkk ci bunt bi mm-hmm. nga jékki-jékki dal di siggi xool ko mm-hmm. daal di am loo wax ba tudd Mariama xaw ma Maymuna mm-hmm. ne ko demal kër gi xoolal ma la fa xew jékki-jékki mu mel ne yow dafa am koo yebaloon mu dem bi mu dellu see man na am lu mu lay wax nga naan soxna si yow nangam ak nangam ak nangam ak nangam ci buntu man maa ngi taxaw di gis mu weddi la ko wax lépp bi mu la wanee ginnaaw dem yegg këram woowaat la téléphone bi mu la woowaatee téléphone nga ne ko lii dama koy woowaat damay woowaat nit ñi ki fekkee woon mu ñëwaat nga woowaat mu ma ñëw nga ne ma déglu soxna si li muy wax. Mm-hmm. loolu moom it mooy li ma xaw a équation mooy li ma xam moo tax ma indiwaat li ma indi tey jii. waaw loolu moo tax ma waxal la gis na seet. Mm-hmm. wàllu jinne ñi seen woote dafa bëri moo tax ma dama moom wax wàllu jinne ñu bëri. Mm-hmm. wàllu jinne moom yooyu ñoo bëri gis ko <laughs> waxuma ne li gis jënd jox la mu nekk si melokaan yi jinne kese dafa rek waxuma nit ku man nag ma tax ma la wax am na loo xam ne ma naa ma yori jinne daa la ma yor mm-hmm. dafa wér dafa wér mm-hmm. man téere alxuraanul karim laa yor téere yàlla bi di mm-hmm. ma nag yàlla dénk na si ay secret te yor naa ay mbir yooyu toog nii. Mhm. damaa yor ay damaa yor sa seet. loolu mooy yàlla defal na ko. Mhm. ci kàttan yàlla képp ku ñëw nii lépp luy ñu du ngeen. Mhm. sama gars yi képp ku ko si yebal nga demal kër gi. léegi ñu indi kon gars yi moom yàkkamte loolu nga yebal leen dañu ñu dem. man kay ku ma diw def nii nangam léegi léegi ci kàttan yàlla baax na rek. mais loolu ay jinn la wala ay lan la fi mu ne ñoom ñu ngay yebal. ndax moo wax la rek biir si biir wax ji maanaam moo wax ne maanaam ñi woote wàllu sëriñ jinne ñoo bëri. Mm-hmm. xam ne jinne doo mën a yónni. jinne de moom. gis na nit soo yore ay mbir ñoom yaa leen dirige waaye yow ñoom waruñu laa dirige. Mm-hmm. sëriñ sa yow ba jinne di la dirige rab di la dirige. Mm-hmm. xoolal sa bopp. dëgg la ko doo sëriñ. c'est. ok. jërëjëf Souleymane ci leeral bu am solo boobu waaye loolu moo fi ne wama chahid naa ilaaj ma yëg naa suñu bët moo ñu may fekkee moo ñu tax ñu wax waxuñu pour lijjanti wala pour dóor wala pour farlu wala pour jàpp déedéet man gaw ma lu mooy Sëñ Tuubaa serafal te kii ma jàkkaarloo di wax ak moom taalibe Cheikh la kon gisuma lan la ma war a mën a defal ci àdduna ba tax may faral moom wala ma koy waxal naka sudul noonu li may wax nii lu wér la te billaahi lazi laa ilaaha illaa suñu borom képp laa koy seede loo mhm. man mii ci sama bopp naa toog fi nga wax man ñu waxtaan ba yàgg si gi ne ma foo man la maa nii de damaa demoon parcelle mhm. nga ma sa kër ku fa mhm. man la nit gaañoo fa ma sa kër bu sa kër kër gi nga taxaloon ñaari kër yi la séq am na kilifa bu fa wàcce wàññeeku liggéey billaahi lazi laa ilaaha illaa ma dugg sama biir kër fekk kër gi tawtu ci man nga xam ne foofu sama benn xarit dafa dëkk waaye juróomu góor wàññeeku liggéey ci une nga xam ne yow bi nga may wax ne ma am na ku fa wàññeeku. booba maa ngi fiy toog loolu xew sama ginnaaw. Mm-hmm. man bi may yegsee loolu laa fa fekkaat. ba bokk naa ci ñi ko jàpp kër yóbbu ko njaaram kon loolu itam seede ko doon seede ci sa jëmm ji. Mm-hmm. ci wàllum seede loo xamante ni du lu ñuy tourisé wala lu ñuy tàppale. macha mm-hmm. allah ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax di sant di ñaan dem saa borom gën a dëgëral taxawaay bi. te gën a gën a gën a gën a gën a gën a xam-xam bi. gën ko wéral ndax uh, taxawu jàmm yàlla yi rek moom moom moo moo lay yitteel. ba tey sëñ Souleymane ci fànnu wàllu rab ma xam ni Souleymane am na ci secret ndax ab séeréer la am juufeen la ba noppi dëkk ci àll bi fa mu dëkk itam boo fa demee gis kuy yéeg <laughs> yooyu yooyu noonu sanc ya samp yàgg yu bagage yi mais ba tey ma gis ni sëñ Souleymane ci boole ñaari doomu aadama ci la gën a gaaw diggante rab ak boole ay nit est-ce que am na lien bu leen dox seen diggante am na rab mhm. sëñ taal mhm. kuy yàq da war dàq yàq wér na. mais tamit tey saa mm-hmm. rab dinañ ko tooñ. ñu mm-hmm. ne mooy yàq fekk mooy yàq def def mooy yàq. Mm-hmm. nit mooy def nit nit mooy def nit pour diggante boobu yàq. tey saa rab na mooy fekk ñaar ñi ñaar ñi mu tàqale leen. wér waaye rab mooy fekk ñaar xam noo jàpp seen projet mariage ba pare. rab rab lii lii du am. mu mhm. wuti bu fekkee ni moom mënu si dara. Mhm. te am na mënu si dara. Mhm. day wuti di mbooloo. li ngay ñaan loolu moom noonu lay ñaan loo ji. parce que loolu day yàq. léegi nag bu boolee. ihdina siraatal mustaqim. faatixatul kitaab kese mën na see boole nit ak nit. parce que faatixatul kitaab. faatixatul kitaab. dégg naa moom fi ne daanaka lu mu mënul am. ëmbul kitaab laa xam. mooy ndayu. ah. mboolem ku nekk si biir nit fatiha may caabi ndax barke fatiha mi si baaw bisimilahi bi barke bisimilahi mi si baaw bisimilahi bi kon baa baaw basmala bi miir ngi si ñi déglu asraar jàng asraar jàng téere asraar mm-hmm. dina xam suñu déggee émission dina xam mën leen wax mm-hmm. kon fatiha lépp ngi si kon yooyu boole am na loo xam ne mën nañ ko fi faf mu gaaw boobu bu bi la am naa fi faf lu hmm. fi bëri sax ñaareel bu mooy ah yàlla dénk na si si hmm. yoo xam ne bu ne du ma si jàngale si rek bu hmm. am na ñoo xam ne mën nañoo daal am na ñoo xam ne mën nañoo bañ daal ma toog fii na toog fii ma def li may def boppam rab bi génnee te loolu daal la def daal su ma génn alxuraan loolu la mbaaxu yàlla ak mbaaxu fi ñu naan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon rab mën naa yàq waaye mën nañ kaa dindi. Mhm. lu dul li mu judduwaale. Mhm. bi nga judduwaale lay mën a dindi doomu aadama ala kulli xaal man Souleymane Diouf mu kaa dindi. waaye bi la dab dugg la wala mu fekk si la. mu des na ko la moom. wala nga def la ko am liggéey kooku du la sànn mu dugg la mu wàllu mhm. soo ñëwee ba ànd na ko de yàlla moom fi mu di bi nga xam ne kii nit ki da koo bi nga xamante ne da koo demal. man man de ma xam ko. de yàlla. Mhm. man lu ma wax lu ne. Mhm. incha allah di tegal ndax yàlla nekk sama kanam. yor na ndax moo ne kanam moo lay xamal. ndax yuhyi wa yumiitu wa huwa alaa kulli shay'in qadiir. ki lay dundal. Mm-hmm. mu mën lépp wallay moo mën lépp. du <laughs> dëgg mm-hmm. kon nag maanaam loolu loolu dañ koy xam. Mm-hmm. loolu nag suñ si jëfee incha allah fooy ñëwee dañ koy dindi. incha allah bari na koo xam ne nan la koo xam ne bu ma ñëwee nii day dindi kat ma ne ko rab bu ko dindi. man ma ah fan te man naa fu nekk jaa rab ya yàq ma ne ko ah wala gis ma ne rab ya yàqal xam nga la mën a yàqal. ñett sarax yoo xam ne soo ko defee. sa jëkkër si ñëwul dañ bu fi ñëwati. ñëw si leen ma sëñ Diouf doo lu ma wax dëgg wala wut ay média nañu kii bi sëriñ donte du ma sëriñ kooku noonu jur boobu bu mu defee saraxee ba pare mm-hmm. ah mm-hmm. na fu ne ñu ne ko mooy yàq te fekk lu yow ah, la gëttee si sarax mm-hmm. génnul fooy balance yi ah ak guro bu weex donc moo ko téye woon. maanaam saraf am sama. Mm-hmm. maanaam kon nag rab moom day yàq. Mm-hmm. waaye laal boole moom yàlla dénk nañu si Faatiha. Mm-hmm. dénk nañu si Yaasin. dénk ñu si ay ay ay ay saari saari saar te génnuñu kàddu Alxuraan gi. mais nag si wàllu xam-xam bu ñu dong. lagat bi kese kese kese rek su ma si amee du si def ma si def bu àndee na ko di yàlla soo sangatoo lañ koy sangatoo bu àndee na ko yàlla li ma woon si njëkk ñëw. waaye fekk fan bu bëgg sax bëgg laa tax ñun sëy bi du am. Mm. su ma si defee ko na si def bu am ne na ko di yàlla ma garanti bis na bis mu moom mu bisub yàlla yi waaye su ma si defal gis. bu solo boobu xam naa ñu njëkkanteeg waxtu wi nga bokk na ci fi ñu di wax yàlla ni nga ko waxee léegi nii daanaka euh, saa su ne bu ma ñëw dinaa ko laaj nee naa damay gis leket bi def ndox ak ay sungufam leket bi def ndox ak ay xeeram leket bi ci des yi tamit daal di def ay pièces su xànjar yu weex waaye beneen leket bi tamit daal di def ay pièces su xànjar yu xonk ak njaq yi nga xam ne ñoo ko tingoo maa ngi gis lu mel ne lem ci biir kër gi maa ngi gis tam lu mel ni ay xeeti sondeel yoo xam ne ay paqueti paqueti paquet la seen njëriñ ñoom ñii ñëpp benn bu ci ne ci lan lay dox fi mu nii laa bëgg a xam. <laughs> maanaam bii moom. nopp la. mooy ndox bi ànd ak sunguf. yi nii. Hmm. pour nopp la. nopp hmm. ok da koy dindi waaw. Mm-hmm. mooy ñaari lekkat yi def ndox yi. lekkat yi dafa dee wax na kon ni da nga seet di ci faj. bu àll na quoi maa si gis lu bari sax. parce que <laughs> waaw lu tax lu tax sëñ Souleymane foo ko fekk lekkat yi ñeent yi moom ci penkoom la ci kanamam daal la koy teg jàkkaarloo ak ñoom fi mu ne mu dox digganteem ak nit ñi ñëw ñëpp. lu ko lu koy undi sama werde bu parce que. léegi ma mm-hmm. feneen mhm. fekk wéccër wéccër yi moom. fu laa judd fekk ko fe mhm. waaw yii moom bàyyi nañ ko lii la làmmiñ bi ñu dal. maa gis tam ay téere yu ñu defar teg ko ci biiram tamit fi mu toll téere waaw téere moom wax dëgg yàlla dafa am téere yu ñu defar nomba yoo xam ni. Mhm. suñ ko defaree ba pare wàllu wërsëg lay dox. lay dox. moo leen ñu mm-hmm. xam ne si mm-hmm. mm-hmm. euh, euh, bokk na ci dégg naa sëñ Souleymane mu ne moom dafa dafa dafa jël décision jël mbooleem loo xamante ni sunguf ak ren ak yooyu la teg ko na léppam mu jël ku dëgmal ko ci alxuraanul karim ndax daal fa yi dafa mel ni dañ la jox secret ci buntu alxuraan ba nga xam ne lépp loo ci mënta saafara moom ci li ngay faj am waaw gisataan alquran mooy lii dëkk bi mm-hmm. alquran mais niir mm-hmm. alquran moo fi ne te moo fi musa ne ma amal daal kitaabu rabbika ni wa kuntu walillahi li isa kooku la sëñ Tuubaa bi wallaay ndeysaan ah, loolu moom mm-hmm. waxi sëñ Tuubaa la wallaay ndeysaan kon loolu mag ngi si ne ba wax loola kon xam ne am na fu ko rek ñoom dañ leen fonkoon alxuraan. Mm-hmm. kon alxuraan nañ kaa war a fonk. kitaabun kariimun. min kariimin min kariimin. ci yàlla ci alxuraan. gis alxuraan bàyyiwul mm-hmm. dara. Baqara ba Naafi mm-hmm. bàyyiwul dara. Baqara ba Naafi. bàyyiwul dara. faraxee Naafi kese kese kese kese ku am njëriñam kenn dootu la ci liggéey. kon daal nga xam ne fi ne alxuraan moom lépp ngi ci biir ay code la nag yu gars yi di war a gëstu code yi gars yi di da xam ne da nga war a di génne dina am benn boo xam ne mhm. day ñëw mu waxtaan la tuuti si wàllu mhm. mhm. nag loo xam ne mu wax la saar bu ne am na muy jëriñ si dee damaa jiw nit ñi di dem critiquer di leen ma wax lu leer war na ma alxuraan moo fi ne te moo fi musa ne. wallaay nga si. moo tax àdduna soo fi nekkee gëstu di jàng. Mm-hmm. jàng muy lépp jàng muy dëgg soo ko xamee doo sonn. wallaay ndeysaan. waaye bu ñu ànd bi ànd. Mm-hmm. gis na soo toppee alquran bay bàyyi sax yaasin ndax yaasin li muy tattal dafa bëri quarante yaasin kese. Mm-hmm. na jàng ko laa wax de. ñeent fukki yaasin ak benn ñeent fukki yaasin ak benn. Mm-hmm. ni quarante yaasin. Mm-hmm. nañ koy jàng wala boo wut ku la nga jàngal. Mm-hmm. neexal ko xolum seet. na yéene si lépp loo bëgg sa àdduna. na sangoo ko benn fan. benn fan. bu àndee na ko yàlla. da nga ubbee ba que dëkk bi nu mu dëgg dëgg dëgg yàlla dama fan. c' est. wallaahi la ilaha illallah. wér na. maa fi mos maa def. gis dafa nit nit ko gis mu ñëw wax ma. ma ne yaasin bàyyi dara. ndeysaan waaw kay. wala yaasin wala yëkkaat yaasin yaasin. wéy wéy wéy du yónnee si bii ne. yaasin maanaam yaasin lañ ko mën a si ay aaya boolee kàmm bu fa bëri yaasin ak faatixatul kila. Mm-hmm. si sondeel gee. Mm-hmm. ma defal si mbir moo xam ne bu àndee dogalu yàlla yeneen ba seen seen mbokk yi dafa ne kii wërsëgam day bëgg a jeex. waaw ma ne ma ne mbër yi nii xam ne kenn ku ne xam nañ sa morom. ah waaw ah kay man. tubarkalla mm-hmm. jërëjëf suñu Souleymane te li nga wax li tax mu neex a dégg mooy fi mu ne dëgg yàlla boo xoolee kuy gën a jamono alxuraan lañ lay lañ moo lay gën si ndax daanaka dañuy nodd fii li xam fii. Mm-hmm. kuy kuy takki soxna tamit alxuraan la koy takk. ku faatu yi tamit alxuraan lañ lay dénk jee suñu borom kon fii de defe naa ne alxuraan moom defe naa ne lu ko mën a féete kaw ci àdduna gisuma ko te nangu nañu ñëpp ni suñu borom ne jàng ak naa li ngay wax ni tam lu yanu maanaa la lu xel mën a dégg la te lu xel di nangu lay tamit macha allah rabbi yal na yàlla defal ñu ci dégg defal ñu ci topp fi may jeexale rek xanaa mu ngi mel ne dégg naa ne sëñ Souleymane mi ngi waaj ab yoon war a génn Sénégal fan la sëñ Souleymane jëm ak lu waral génn boobu mu génn war faa jëme ji waaw Mauritanie ca naar ya ci kàttanu hmm. yàlla. Hmm. incha allah képp ku ma woo ak itam. Hmm. woo ma sama sàbbi. ku la woo ci whatsapp bi daal dina la jot. dina jot incha allah. di gis daal bu ma taal sama kër sama woo waaye nag moom mënu may fayal. bu ànd na ko yàlla. waaye ku ma woo itam appel normal. joo woo ma si numéro expresseur yi. ba ma wooyee rek dama yóbbu kàttan yàlla baax. incha allah incha allah lan moo la fa yóbbu liggéey moo la fa yóbbu. wala xam-xam la wala liggéey damay wuti xam-xam ñaari baax la <laughs> sëñ bi daal bàyyiwul dara mu seetlu fi mu jot nii. li mm-hmm. gars nii. Mm-hmm. laa bëgg mu deñ. jigéen ñi dañuy mm-hmm. xam ne amul doom. bu ñuy am doom. ba ànd nañu ko de yàq nag mhm. mhm. ko joxee. Mhm. ëmm nga sama cuuraay li nga ne woon di nga ma ko jox ma suuroo. te cuuraay incha allah mi ngi fi ngi suñu kanam ñetti làmb yu doy waar. non wa laajuma la waxuma la ci pour nga wax ci parce que xam naa am na noo bëgg di ko ci waxee mais tey jii dama dégg ay kilifa yu toog wax ne làmb ji dina bëri ay ay ay ay li nga li nga tàmbalee émission bi dina bëri ay faatu yu ci am kon na askan wi fagaruwaat ci seenu njaboot. Mhm. tere leen stade bi est-ce que yow ñooñee seen wax jooju wax gis nga lu ni mel wala gisoo lu ni mel boo ko gisee tamit lan mooy sànq bi nga xam ne dina tax fi mu nit ñi mën a mucc parce que moo xam naa ni yitteel doomu aadama yi rek mooy li la yitteel macha allah rabbi. Cheikh Talla. Hmm. Lamb de. Hmm. Hmm. waxuloo ci sax nag. waaye muslaayu doomu aadama yi bëgg làmb ak door ci. en tout yi di jëm nii. Hmm. ak Reug Reug. Siteu Papa Sow. Papa Sow. Boy Niang. le premier. Hmm. làmb ji day waar ak noonu nag. Hmm. Ah, waaw làmb ji day waar surtout maa Siteu. Siteu. Papa Sow. Papa Sow ma sañoon te du jël combat bi. boo sañoon Papa Sow du jël combat bi. li ñu naan benn borom. kenn kenn kenn kii daal. kii rek wax tamit ndax kii lu xam-xam mu ñuul bu mu yor. wax ko ba. Siteu. Hmm. gone gu gone gu dansé nañu noonu. te hmm. ay lu démb la toll. dafa am tànn. yal na yàlla la def tawféex. mais gàllaay képp ku fay dem te ñu yóbbu maanaam yéen dem di filmé. Mm-hmm. yow miy filmé sax utul di gàllaay. sëñ bi kay loolu mooy bu ma dem. non yo moom dina dem incha allah non yow moom Cheikh euh, Cheikh euh, sëñ Mbacké. Euh, kii Cheikh Mbacké kii gis na sëñ Touba. Mm-hmm. soo jàngee sa ay téere nag. Mm-hmm. kaaraange yi fi. wallaay ndeysaan. ma ne kon doo jaaxle. wéeru sa alxuraan ngi nekk. alhamdulilah rabbil alamin Fatiha. Hmm. kursi. Hmm. bàyyi ko dara. wallaahi di saa loolu lépp kaar kaar. tabarkalla. kay moo tax làmb. Hmm. dafa doy waar. li muy digal daal euh, Siteu kii Papa Sow. jege. ko jege ku dangereux koo xam ni. warkam la. ku jege Papa Sow. Papa ko jege koo xam ni na ma yàlla jege laa la may def. di jaar am gorom. alalu àdduna te dafa faraayam parce que na moytu mel ni mënul naa maa ba sa des mooy Balla Gaye Boy Niang mm-hmm. yal na si yàlla def ko feex te si kenn mm-hmm. nag nag yal na yàlla defal ko jàmm Boy Niang yal na yàlla defal ko jàmm mu bëri ko si jàmm may gàmm làmm bu diire yi noonu mm-hmm. làmm bu diire mu ngi noonu. mais ku xef doo gis jënd bi. baatu. te gàmmut. di wéy daal moom weesu naa foofa. ah làmb ji nii nii moom lu bëri gàllaay moom moom. làmb bi si dëgg. mooy Balla Gaye Boy Niang. Sa Thiès Reug Reug nag. Sa Thiès Reug Reug Reug Reug am na gàllaaj. Hmm. surtout naa bëri jot di gàllaaj ak am bi su ma Balla Gaye gànnaar bi dinañ wut waaye nag na moytuñu ko Sa dafa saay saay. Hmm. gis na Reug Reug am na benn para bu ko yor. Hmm. kooku dafa ñeme xam te Reug Reug dafa xam instant nii lu muy toll nii. Hmm. dafa xam dafa jékku. dafa jékku mais jékku bi nag na moytu ba mu naagu. ba mu gën naagu daagu. waaw kay. loolu moom góorgóorlu rek yàlla na yàlla def ci la am yéene jàmm. waaw man mu sa Thiès kii bi Siteu kële Paasaw. Balla Gaye booy ñaar. Mm. yaa ngi si yàlla def jàmm. wallaahi comment bu daa tëree noonu. macha allah waaw kay yàlla na yàlla def am bu la jox ngeen naan ay kii way daal. Mm. waaw waaye ñee daal ñëpp nag ñun su dee duggee léegi dëgg. lu koy daanoo mën naa wax ne jiw mooy daal. waaye si kaw mu du ko kàttan yàlla. macha allah junj doy na borom xel foofu nga tàmbalee woon foofu nga ko tëjee waat kon baax na ñun dégg nañ ko bu baax a baax allah mm-hmm. kaddu lan lay doon ci biir jotaay bi <laughs> ñu yëkkati ko. ndax waaw ñoo ngi la. Mm-hmm. te réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm. allahumma leen. xiiroo bee ñaaro bi kon yal na yàlla ubbi kaamil def ko ci dënn xale yi def ko ci dënn moo doon bind. ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. musiba bu fi dal yàlla ko waala wàccee ko. Mm-hmm. barke alxuraan kër yàlla ubbi ñëpp ci barke Seydina Muhammad sëriñ bi nag ñi nga xam ne ñooy naxaate. Mm-hmm. ah ñu mel ni man ngalax dañuy xool seen diggante seen borom. Mm-hmm. ah waa laysa lil insaani illaa maa sa'aa wa anna sa'yahu sawfa yuraa sama rubrique sa ak jël sa àllaw fa aaya bi képp ku ne. Mhm. ku dégg aaya bii war naa xel ne loolu def ëllëg di ko defal. wallaahi loolu lépp lépp ko fay. Mhm. soo jëlee dërëm jàmm jox ma sa sa sàngam defal la sa sàngam. Mhm. defal sa soosa. yow ma xiyaama yàlla du rëkk sa ndigg. te du si mën dara. wasalaamualeykum wa rahmatulah wa barakatu. ci barkeb say xi fàddilu buur yàlla ay maqaama yàllaaw bisimil ilaahi barkeb sayxi fàddilu mi buur ay maqaama yàllaaw bisimil ilaahi barkeb sayxi fàddilu mi buur ay maqaama yàllaaw